noo ngi ziyaaran mbokk yi nga xam ne ñooy teewlu seen chaîne alxadimiya fii ci jotaay yu xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci majaalisul xadimiya ñu amaan mbégte tey dalal sëriñ ahmadu sëriñ ahmadu mbàkke daarul mooti di boroom xam-xam di jàngalekat di tali Serigne Touba bo xamne yit yengom yep ak dalam yep ci liggey l'islam ci tolu cheikhul khadim bi la. manam wote mooy jëmmi tariikha bi tariikha la bo xamne ni delu rek ci jëmmi sun borom. ak mm-hmm. wut ko ak sakko ko ak yalla kep di di sa ki mm-hmm. ne kii jaamu yalla xam nga amna ño ñoo xam dañ jaamu yalla ngir bëgg aljana nga ne borom mo na ko lo lool mm-hmm. nga xam fi ne bu amutu ton dootu ñu jaamu yalla murid nak moy ko xamne yep yëpp tax koy jaamu yalla moom day jaamu yàlla ngir ne ab jaam la te yàlla yàlla hmm. bu àggoon itam yàlla dugal ko sawar itam day sant rek <laughs> <laughs> ndax ah, yàlla ko moom xam nga sant ko di mu war koo def hmm. lépp lu ko fayee lu ko ca lu ko lu ko neexale itam ëllëg itam ak cant la ci la ko la ci koy dolli hmm. alhamdulillah